ndax it àdduna wërngal këpp ñu ngi ñuy daal di xool ñu ngi sàkku Sénégal di jóg ñëpp daal di dem ca mbañ gàcce sànni seeni xob si jàmm ak salaam bokk na ci ab njombe accident bu metti moo daal di xew tey suba foofu lay ca kaam benn oto marchand dajeek ab benn euh, moto ba tax na rek ba ñu dajee lii di dawalkatu moto bi ñàkk bakkanam ci saase mbokk yi yeneen yi xibaar mu dipp xibaaru tàggat yaram ne skis soobu ci atal gi rahmatullah mbokk yi ñu leen di dalal jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci Leral TV ñu daal di soobu ci yaatal gi ak ministre bi yor wàllu kaaraange réew mi mu di ministre de l'intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé amal na ndaje ndajeb ndogu ñi nga xamante ni moom mooy uh, way taskatu xibaar watina màkkaanam ak ñi nga xam rek moom mooy uh, direction général des élections ndaje boobu ñu war a waxtaane ko ci nu mu gën a yaatu ak taskatu xibaar lu jëm ci wàllu doxalinu élection yooyu le sëriñ bi daal di si woon ne rek génn nañu lu toll si fukk ak ñeenti milliards ci suñu ay koppar ngir daal di mën a organiser yii les élections mu dëppoo woote bi jiitu yi ñu fas yéene amal ci dimanche bi day teelu ak Cheikh Diop ak day continuer dox général des élections nga xam ni benn direction générale nu tudd ko sax des élections nekk ci biir ministère de l'intérieur nga xam ni lépp luy wàllu opération électorale tax nu nu mën ci jàmm ñoom la ko yoon teg ci seen loxo seen cër nu war ko doxal su la supervision certes du ministre de l'intérieur mais ñoom seen cër la en général nu xam ko di ko doxal am na ñun ci xam comme directeur bi toog fii tey di di Thiendella Fall am na ñun ci xam comme euh, monsieur Sène qui est le directeur de la formation mais am na ñun ci xamul te ñoo ñoo ëpp ay sénégalais yu bëri yu kenn xamul yi nga xam ne du ñu nelaw foofu nu ñuy fanaan suba ngoon guddeeg bëccëg ñi ngi nekk direction de l'automatisation du fichier ñi ngi nekk senaa ñi ngi nekk feneen ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk di liggéey guddeeg bëccëg pour Sénégal yi mën voter ci jàmm ndax vote bi bésu vote bi xëy na mooy mooy jeexantal bi mais lu koy jiitu presque at lu ko at lu ko jiitu lu tollook at ci liggéey nu ñuy nekk ne serait-ce que war commander matériel bi ne serait que war commander euh, lu lépp luy matériel nu koy wax matériel lourd wala imprimé yi bulletin yi commande yi war ko acheminer ci localité yëpp ci réew mi mais aussi Sénégal am benn particularité vote bi am na solo bi nga xam ne Sénégal fu mu mënti nekk war nañu ko fexe bu mu bu mu jot bu mu jot jotali votam donc organiser bu ñuy organiser vote bi ci diaspora bi ak ki démocratique bu am solo la mais logistique bu metti la pour transporter matériel bi ak bulletin bi parce que condition yu ñuy voté yi fii noonu ñuy ci ci yi ñoo niroo lépp ñoo niroo bulletin ñoo niroo imprimé ñoo niroo encre ñoo niroo lépp te loolu yëpp duñ ko war a yóbbu foofu te fi ñuy wax ak yéen ni loolu yëpp daje na nu benn dë dëkk ci Sénégal bu ñu war voté wala ci bitim réew bu Sénégal yi war voté bi nga xam ne matériel électoral bi àggu mu des nag ni su dimanche nu voté pour tànn euh, le cinquième président de la république wax naa ko démb Thiès mën naa ko waxaat tey man nag yéen xëy na ñoo xamagul kan la mais yàlla moom tànn na ko ba pare mu des nag daf koy jaarale ci votu électeurs yi donc jarul tojante bopp jarul reyante jarul àgg ci yenn yi li nga xam ni ëllëg defaroo bi day gën a metti ndax suñu voté ba xëyet Sénégal day continuer dox Sénégal yi duñu bëgg sunu voté yeewu nekk ci jàmm gannaaw eh, jawriñ bi wàllug eh, kaaraangi réew mi ñii di moom di waa Sénat commission électorale national autonome ñi nga xam rek ñoom ñooy saytu eh, lii di wote yi daal nañuy jagleel bataaxal askanu Sénégal ngir woteb njiitu réew ci jàmm ak dal ëllëg ci dimanche bi moom njiitu Sénat di Abdoulaye Sylla mi ngi sakko ci askanu Sénégal ñu daal di wane seen bopp lépp loo xam ni moo jëm ci wàllub matt rawatina ci wàllub doxalinu politique ndax it àdduna wërngal këpp xel moom itamit ña ngay sàkku ñoom waa Sénat askan Sénégal ñu génn ci lim bu takku dem ca mbañ gàcce euh, sànni seen i xob tànn ki nga xamante rek moo war a nekk seen jiitu réew ci jàmm ak dal réew mi ñëpp rek daal di ci gis seen seen euh, bopp euh, kon ñi nga xamante rek moom mooy waa sena nee nañ daal lépp loo xamante ni lu war la ci wàllub saytu élection yi danañu ko amal ci fépp foo xamante rek moo jëm ci wàllu wàllub bureau de vote yi ñu amal fii ci biir réew mi waaye tamit euh, foofu ca waxi naan euh, nimsaat euh, soxna yi nga xamante ni ñoo ànd booloo ci mbootaay bi ñu tuddee ànd déggoo ñu ngi sàkku ci askanu Sénégal ñu daal di génn dem sànni seeni xopp ci ab dal ndax it Sénégal fi mu nekk nii toll nañu ci jamono joo xamante nii rek lépp rek dafa war a soppeeku waaye tamit ñu daal di soppi li nga xam ne moo jëm ci wàllu doxalin yi teg ci suuf loo xam ne moo jëm maanaam xii sànni seen xob réew ci jàmm ak kon kii di euh, présidente wala bokk njiit nga xamante rek ñu lay ci seen dëkkuwaay ba di wax ci nag zaat Ibrahima Khalil Diémé boobu ay waxtu rek a des ngir ñu dem ci élection présidentielle yi ngir jàmm mën fii ci Sénégal rawatina ñu jigéen ci groupement ànd déggoo sat ñoom ñoo daal di amal seeni ñaareelu édition bu conférence religieuse ci loolu nag la ñu daal di ci ngir lancé am élection yi dañuy wax ne nañu dem wote yi kër lu jàmm jàmm ko gën bokk réew mi ñu ko xar li ñu sensibiliser ñu gën Sénégal ñun ñoo ko moom sunu réew ko def réew lan defar waaye su ko yàqee itam bañ doon conférence religieuse boobule lé dàkku te dañu soxla ku soxla ay finance nga xamante ne moom lañ yàlla journée Fabira nekk président bu plateforme ba moom it di rafetlu bëccëg biile gis naa ne yéen a ko wax di jëfee ba tax tey kenn entreprise daan dooleem di ci liggéey. ci dimanche lu weesu secteur ñu dem gàcce ya ngir rekk mën a tànn njit yees jigéen yi nekk ci groupement ànd déggoo foofu yewaay jaarale ko ci di wax dem ci élection yi gannaaw ay ca euh, tasaaroo lañ daal di euh, ji lépp rek ci rek moom lañu war pale ci woote njiit réew bi ñuy dëgg ñoom ay ah, camarades yi ay àndandoo ah, Karim Meïssa Wade nekk foofu ca départ nekk ndek bokkuñu ñoom ñëpp fa ñu jëm xamante rek daal tànn nañu ah, kii di coalition benn yaakaar ak seen ay ñi ak Bassirou Mbacke ñoom ñu jàpp ne daal ñooñu leen ak Ndiogou Malick Dieng nekk ay euh, militant gu parti démocratique sénégalais ka dañu ànd ak ngor te fi mu nekk ni daal di tedd lépp di euh, santaane wala boog euh, dig digle li nga xam moom mooy seen bile parti teg dem seeti leneen ñu daal di déglu moom mi li nga xam ne moom mooy Bassirou Mbacké Diatta moom mooy secretaire général fédération départementale bu Guédiawaye ak Ibrahima Khalil Diémé est grand parti dafa am ay nit yu bu boo Guédiawaye ne ñoom ñooy département bi nekkuñu département bi le département est la en l'occurrence dañoo displiquer ki leen jiite naan moodu xaw ma ki leen jiite tudd Ndiogou Malick Dieng kii moo ko wuutoo ci palaasam kii di Moodu Mbub mooy président de la fédération départementale de Guédiawaye man mii toog may secrétaire général de la fédération départementale de Guédiawaye kii toog mooy présidence des femmes kele toog mooy responsable des jeunes ñi ñooy députés yi ñii ñooy responsable yi xanaa wax day jeex kii kii mooy président bu Sam Notaire di trésorier départemental wax ji mooy ñun fédération bi dañoo woote pour wax leen ni ki ñooñu di woote naan dañuy dem ci Amadou Ba ay tappalekat lañ ñun puusuñu paasuñu Karim Wade la ñuy xaar moom rek la ñuy déglu moom rek la ñuy déglu dégluñu keneen maître Abdoulaye Wade di suñu patriarche moom rek la ñuy déglu léegi nag nit ñi di ut xaalis di def li ñuy dugal racket politique il ne parle pas pour la fédération am na ay vidéo yuy circulé yoo xam ne dañu ci gisee nit yoo xam ne bu tey ñu ngi ci Anta Aba Babacar bu subaa ñu ngi ci Aliou Sall bu ginnaaw subaa ñu ngi ci Lat Diop bu ginnaaw subaa ñu ngi ca feneen le PDS n'est pas dans les combines le PDS n'est pas dans les complots le PDS est un grand parti dafa am ay géejawaay yi dañuy des ndaxit eh, ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ñu ngi leen di jàppale ngir ñu daal di jël li nga xam ne moo di eh, seen i eh, carte d'identité ak itamit seen carte électeur lépp rek ñu ngi leen koy jàppale ngir rek ab lim bu takku ci ay ndaw ñu daal di jël seen carte yooyu la lépp rek ci jàppandalup li nga xam ne mooy mouvement des jeunes cadres républicains yi nekk foofu ca département bu Géejawaay ki nga xam ne moo nekk seen coordonnateur di Modou maane Seck mi ngi daal di rafetlu ni nga xamante que noonu lañ daal di doxalee euh, lii di campagne bi te amul euh, benn fitna bu ci yeewu foofu lay ca waaye moom Modou Mané sekk ak Ibrahima Khalil Diémé. stratégie bi ñu teg mooy ñun dañuy xool. ci ci commune bu nekk xale yi fa nekk nga xamante ni déposé woon nañ seen carte d'identité seen carte électeur mais jëlee guñ ko woon. nous soit dañ leen di jox ñu paas soit man sama oto laay taal sax di dem di jëli yenn boy yi ne leen kaay leen ngeen ma yóbbu leen ngeen dem jëli seen carte pour que ngeen mën a voté ji ça m'est arrivé ñu bëri ñoo xamante ni man maa demoon yóbbu leen pour ñu dem inscrire donc pour wax la ne la liggéey boobu moom dañ ci nekk bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg parce que ñun xam nañ ni primo votant yi ñuy wax il sont à feu xam nga am na carte yoo xamante ni ñu ngi ci sous préfecture yi c'est-à-dire carte yooyu boo xoolee tey par exemple dama lay jox rek euh, ñaari ñaari exemple la majeure partie des jeunes sénégalais ñu ci bëri génn nañ génn nañ euh, Sénégal ñenn ñaa ngi Nicaragua doo compter ni am na ñoo xamante ni peut-être gaañu nañ ci diggante bi seen carte mu ngi fa mais nous on est en train de faire le maximum possible pour que nit ñi nga xamante ni demoon nañ déposé ji inscrire ñu yóbbu leen ñu dem jëli seen ay carte parce que xam nañ ni ñooñu ils seront favorables ca diwaanu euh, Louga ñoom euh, militant yi nekk ci parti euh, socialiste ñu ngi gën a rek féddali seen féete maanaam daal àndandoo ak ki nga xamante ni moom mooy seen jiite di Aminata mbeng Ndiaye ngi daal di jàppale candidat coalition Benno Bokk Yaakaar moom it di Amadou Ba bésub ñaar fan ak ñeenti ci weeru mars mu daal di jël ndam li moom El Hadj Ndiongue Cissé moom mooy secretaire général adjoint parti socialist foofu la ca diwaanu Louga lii mooy ay kàddoom mu Aminta waxtee seeg ñun ñu ne ko Aminta bu koo xam ne da yore section muy góor di jigéen di jeune ñëpp a ngi teew fii di rassurer Aminta Mbengue ne ko sa gannaaw bëndëng parce que parti bi ci boppam yow la ñu déglu yow la ñu wóolu yaa ànd ak benno ñu fekk si la ci parce que duñu jàpp di bàyyi ma bëgg a leeral nit ñi ndax coow li bari na parti socialiste danoo dem kenn bougé wul ndax bi biñ ko déggandéemee lan woo parti bi ñëpp taw kenn ku si nekk jël na kàddu wax Aminata Mbengue dama lay xamal ne la boo tëddee na nga nelaw kenn du la ree si kàttu yàlla yont bi li ñor kay mooy lenn mooy ñu préparer lii ñu dëgmal muy élection yi ndax ñun benno bi la na ndax Aminata Mbengue moo ànd ak benno bi si kàttanu yàlla ak yont bi lépp loo xam ne mën nañ ko daan ko ba yàlla may ñu ndam ji lii laa amul lu may wax ba salaam Amadou Ba nag la jàppale ndax li tax ñuy jàppale Amadou Ba Aminata Mbengue xaali moo tax ndax dañ koo jox cër Macky Sall da koo jox cër xool ko mu xool Amadou Ba mu wax waxtee si ñun ñu ne ko aminte li nga bëgg la ñuy def. ñu daal di wax gannaaw bi nga xamante rek moom ay kaddoom la daal di yëkkati rek di sànni xeer kii di Bassirou Diomaye fay ñi nga xamante rek moom mooy section communale coalition Diomaye président ñoom itam jaroon nañu ak taskatu xibaar di indi ay leeral ci li nga xam moom mooy kàddu yu bàyyi ci njiitu parc di Anta Babacar Ngom te itamit ñoom ci seen janoo ak taskatu xibaar yooyu sàkku nañu ci askanu Sénégal rawatina ndaw ñi ñu daal génn. génn ci ab lim bu takku sànnil xob ki nga xam moo nekk seen candidat di euh, coalition Diomaye président dañu daal di teelu Omar Ndiaye Babacar Thial ñu ngi toogal foofu ca Mbour ci yaatal. attaque bi nga xamante ni nii Anta. Sénégal defar ko. mësta nekk du. Babacar Ngom def na ko président ba Bassirou Diomaye Faye démb ci bi muy ñëw ci diwaanu Mbour neexul dara section communale bu Diomaye président ci diwaanu Saly ñoom ñoo sax jàpp nañu leader acte bi li muy wax dara amu ci. Euh, Babacar Ngom dégg naa ko mu naan. Diomaye buñ ko falee dañ koy defaraat ma ne ko ci la mu ne ci ay euh, Diomaye aayul ma ne ko effectivement Diomaye aayul mais ci lan la aayul sàcc mënu ko de du jikkoom Diomaye aayul d'accord Diomaye ci lan la aayul luubal mënu ko de mënu ko Diomaye aayul Diomaye ci lan la aayul wax muy dañ mënu ko mais jomaay ci lan la ay defaraat Sénégal moom la ñu yaakaar ci moom ndax jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay. ci loolee sax ñoom nag jamono ji li ñuy sàkku rek mooy commune bu Saly ñoom ñëpp ñu daal di génn dem voté ji massivement buñ ci noppee nag ñu sécuriser li nga xam te mooy seen vote bi gis nga consigne bi mooy bi jógee ci kaw mooy bu keroogee dimanche ngeen teel a jóg teel a xëy. rangi teel a voté jeunesse bi ngeen taxaw sécuriser vote yi bu kenn dem. mais mais quand même aussi jeunesse euh, ngeen tax dañu war a sécuriser suñu vote parce que ñii nii dañu taxaw tem amatuñu benn pexe lu dul sàcc. gannaaw deux jours ñu def ko campagne ñoom section communale Diomaye président ci diwaanu Saly doon nañ jàkkaarloog ñi nga xam te ñooy rek ngir ñaaw nag attaque yi xam te ne jamono ñoom nemmeeku nañ ko jëmale seen candidat boobu mu aussi daal di woowaat xam te nii mooy population Saly ñu daal di voté voté xam te ne dina am njëriñ ci commune bi Euh, ci wote yooyu rek la ñu daal di des ndi ak kile nekkoon euh, candidat te ñu daal di koy seppi moom njiitu euh, mouvement gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany mi ngi sàkku rek ci ay militangam ñu daal di def seen kéem kàttan te itam ku ci nekk sànnil xob kala neex ci bisub wote yi te ñu waajal bu baax a baax li nga xamante rek mooy ñaareelu pàcc maanaam deuxième tour ci wote yooyu nga xamante rek war nañu ko tàmbali ëllëg ci dimanche bi moom ay kàddu Bougane Gueye Dany la ñu daal di teelu dimanche bi sénégalais yi dinañu génn dem voter ñu war a tànn cinquième président de la république ci ñun gëm sa bopp liggéey nañu liggéey bu mucc ayib fépp fu nekk gox goxaan ci Sénégal teg nañu fa suñu tànk yéene Bougane ak waa gëm sa bopp ci nu ñu sopparñee Sénégal defar ko mësta nekk dut ci benn Sénégalais loolu moo tax bi ñu ñu génnee ci élection yi ñu jàpp ne Sénégal moo nekk ci suñu kaw ay ambition lu yàq Sénégal du ñu ci bokk mais xam leen ne dañu amorcer tournant bu décisif fi ñu jëm c'est historique bu ñu nangu kenn yàq suñu réew bu ñu nangu kenn saraxe Sénégal bu ñu nangu kenn sax-saxe Sénégal réew mi ñun ñoo ko war a defar bu defar waree am ñun sénégalais yi ñoo koy defaral suñu bopp je voudrais d'abord attirer votre attention que am na coow lu bari ak lu ñuy ruumandaat lu nekk ci suuf ñi yëngu ci wàllu pétrole diviser nañu camp politique bi ñaari camp ñoo xam ne dañu ànd ak waa Qatar ak les Russes ak ñi nga xam ne dañu ànd ak les Anglais les Français et les Américains dara waralu ko lu mooy suñu gaz bi ma dina attirer seen attention pour que kenn ku nekk ci yéen surtout les militants de gëm sa bopp ngeen jël seen responsabilité man Bougane élection dimanche yi nga xam ne fa la ñu jëm maa ngi libéré bépp militant bu gëm sa bopp fu waay nekk fu la neex candidat bi gën bi gën a dal sa xel demal nga voteel ko suñu taxawaay nag ci opposition suñu taxawaay ci xeex li fi nekk mësta soppiku bu ñu demee deuxième tour incha allah dana nu gën a dajewaat xool kan moo gën ci programme yi ñu am ak kan moo gën ci Sénégal jërë bu weesoo wàllub politique ñu wax li soxal wàllub wér-gu-yaram ak euh, jawriñ bi ñu euh, dénk wàllub wér-gu-yaram bi di ak action sociale di Marie euh, Xemes Ngom Ndiaye daal day ubbi ab benn bërëb bi nga xamante rek foofu la ñuy defee lu ñu tuddee wàllub greffe de moelle ak thérapie cellulaire foofu ca hôpital Dalal jaam bi nekk foofu la ca Géejawaay mu nekk bërëb bi nga xamante rek def nañ fa ay jumtukaay yu mucc ay tey tamit dëppook jamono lépp rek daal di xeexal lu ñu tuddee cancer cancer bi nga xam ni mooy nekk ci deret ah, ci Afrique euh, sow jant ah, kon bërëb boobu nga xamante rek fa la ñu daal di defee lu ni mel mu nekk loo xamante rek képp koo xamante ni amee nga euh, boobile ah, jàngoro. danañ la taxaw ci anam na mu gënee ak itamit ay jumtukaay yu daal di dëppook a jamono moom professeur faatu sàmba euh, Diago Ndiaye chef service hématologie clinique bu centre hospitalier bu euh, dalal jàmm mi ngi indi ay leeral ci li nga xamante rek moom lañ daal di ubbi foofu lay ca hôpital dalal jàmm ci micro euh, biram Khary Ndaw lay waxee. dañ fi euh, daje tey pour inaugurer bâtiment bi nga xamante ni moo nara a saytu ak faj képp ku am feebaru deret. bu bu bu sévère bi maanaam xeetu cancer ci deret mais aussi yeneen xeetu feebaru deret yi comme drépanocytose wala yeneen feebar yi nga xam ñu ngi koy gis ci médecine interne. donc batiment boo boo xamante ni bu mucc ayib la ak ay matériel yu mucc ayib yoo xamante ni dina permettre ñu faj suñuy patients sénégalais ak patients yi dëkk dans la sous-région parce que batiment bi rek moo am en Afrique francophone pour ñu mën a faj xeetu feebar yi batiment bi nag ci ñetti niveau foo xamante ni fa la ñuy xoole ndax malaat bi apte na pour bokk ci traitement yooyu ci suuf dina di ngeen gis ni spécialité yëpp ñoo fi daje pour xool ndax malaat bi buñ ko naree greffé dina ci génn wala déet une fois ñu sélectionné que dañuy yéeg ci kaw préparé ko defal ko chimiothérapie après nag ñu yéegaat ci kaw encore fekk na boobaa def na nañu prélèvement wu cellule am yi pour mën ko ko greffer ëllëg looloo tax ñu tudde ko autogreffe de cellule souche euh, hématopoïétique ñu bare soxla nañ ko ci xayma war nañu ëpp à près téeméer yuy rang xëy na di xaar yëf yi démarré ñu mën leen ca boole. ñu des foofu ak moom directeur hôpital Dalal Jàmm di musa Sam Daaf daal dinay rek dikkaat ci li nga xamante ni moom mooy koppar yi ñu war génne lépp loo xamante rek moo jëm ci wàllu euh, paj mi foofu euh, foofule ak i tamit lu yees ñu daal di samp foofule ca hôpital Dalal Jàmm moom sax nee na koo xamante rek nekk nga fii ci biir réew mi boo ñëwee ci hôpital boobu amee boobu lay jàngoro nga ñu war laa faj. ding na am euh, njëg boo xamante ni di nga ko fay tey tamit du metti ci sa ndodd ñu teelu ko biram xarit ndaw ba tey. tey bésu mbégte la mbégte parce que kenn xalaatul woon ne Sénégal dina am lu mel nii euh, alhamdulilah rabbil bi nag bi ko président de la république xalaatee jox ñu jumtukaay maanaam xaalis bi war pour ñu tabax ko loolu nag biñ koy tabax aussi ñun la naam. mais bànqaasu ministère de la santé bi yëpp daf daf ñu ci jàppale ci wàllu xelal ci wàllu suivi ci wàllu appui même li manqué woon sax mu dolliwaat ko ci pour que lépp mot mais yamul ci loolu rek daf ñu jàppale aussi ci formation personnelle bi. mais ñun lu ñu jàpp mooy que ne ñun dañuy faj te te également bu ñu amul ku ñu faj suñu nekkin amatul solo donc dinañu def tout pour que ñi ñuy faj. mën a faj ay nit te pour ñooñu ñu mën leen faj pour il faut ñu mën a yegg si ci biir hôpital donc dinañ ko yombal ba nga xam ne ne euh, bu ñu ñëwee dinañu faj léegi nag am na loo xam ne aussi mun ci ñàkk ndax du ñun ñooy euh, bépp garab boo xam ne dañ ko fiy defar wala am na loo xam ne dañ koy jéggaan bitim réew il faut ñu jël ko il faut ñu fay ko mais en tout état de cause dinañu fexe daal ba sénégalais bi nga xam ne da daan dem di fay cent millions feneen ak feneen bu ñëwee fii ci hôpital Dalal Jàmm ñu wàññi ko ba mu xaw a sedd xam naa ne nag euh, autorité également vraiment dinañ ci gën a mën a jàpp parce que ñoom it seen wàll mooy faj sénégalais yi te gis nañ ko ci programme yu bëri. daal di wax tamit ci njombe bi nga xamante ni moo daal di xew foofu la ca Sangalkam ab oto boo xamante ni rek dafa yoroon ay marchandise moo daal di dajeek ab moto ba tax na rek ki doon dawal moto bi daal di ñàkk bakkanam ci saa si mu dipp mbir moo xamante ni ma nga xew gannaaw bi ñu tëjee ab benn yoon foofile ci diirub benn waxtu kon moo daal di jur bile njombe mu di oto boo xam ne dafa yoroon ay marchandises dawal kat moto ñoom ñaar ñëpp ñu daal di daje ba ki doon dawal moto bi dal nay ñàkk bakkanam mbokk kii loolu la woon ci pàcc gu njëkk gi ñaareelu pàcc gi muy xibaaru tàggat yaram tàggat yaram dañuy daal di wax ak football équipe nationale bu euh, Sénégal démb doon nañu dajeek ak ñii di waa Gabon foofu ca France muy ca Amiens kon euh, Sénégal ñoo mujjee gagné ñetti bal ci dara ñu gis équipe nationale bu Sénégal boo xamante ni. am na beneen xar kanam bu bees mu dip ay gone yoo xamante ni ñoom ña nga woon ca match ba daal di wane seen bopp bokk na ci euh, doomu Sénégal bi nga xam moom mooy joué foofu la ca FC Barcelone bi Mikayil Ngor fay wane na boppam bu baax a baax a baax a baax bay tamit ñi képp ku seetaanoon match bi bàyyi nga ko xel mu dal di dugal ab bitam bu njëkk ak équipe nationale bu Sénégal keneen tamit di Seydou Sano ak Habib Diarra ñoom ñëpp daal nañuy wane seen bopp bu baax ci boobi la ndaje ñuy fàttali ñoom gaynde Sénégal talaata la ñuy daje ñii di ak waa bene muy ñaareelu match euh, xaritoom yi. Jeux africains yi amal foofile ci réew euh, Ghana Sénégal amaat na yeneen ni araaye mu dipp ay médaille ci wàllu taekwondo. Euh, taekwondo bi nekk loo xamante rek ñoom ñi ngi def ay jéego yu am solo euh, ci fukk ak ñetti jongante yi nga xam ne ñoo fay am ci ay euh, discipline ñoom taekwondo bu Sénégal jëlaat nañu ñaari médaille d'or démb kon fi mu nekk nii am nañu ñeenti médaille d'or ci Jeux africains yi amal foofile ca Ghana gannaaw kiy def judo di Monica Sagna ak taekwondo di Mansour Lo ak i tamit euh, kii daw euh, wàllu athlétisme du Louis François Mendy Adama Ndiaye bi nga xam nag moom mooy def euh, taekwondo moo jël li nga xamante ni moom mooy médaille d'or bokk na ci tamit yaay Aïta Ndiaye moom itamit jël médaille d'argent kon fi mu nekk daal ñoom Sénégal ñu ngi def ay jéegu yu am solo foofu le nga xamante ni moo soxal ci wàllu Jeux africains waaye tamit tournoi qualification Jeux olympiques Paris 2024 juróom benn ci ay mbërub Sénégal kon ëllëg danañu soobu ci jongante li nga xam rek moom mooy wut ay euh, place war a dem foofu la ci Jeux olympiques euh, Paris 2024 euh, bokk na ci mbër yi moom du Faye bi ñuy woowee ordinateur ak juróom yeneen ci ay mbër danañu def seen kéem kàttan ci jongante bi nga xamante ni ca Alexandrie réew Égypte la ñu koy amale ah, bokk na ci moo Modou Faye ordinateur nekk si téeméer ak ñaar fukk juróomi kilo ah, Papa Ndiaye sox sox nekk si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari kilo ah, seeni seen peseeg benn juróom-benn fukk wala bokk juróom-ñett fukk ak juróom-benn kilo moom Mamadou Diouf juróom-ñaar fukk ak ñeenti kilo Silvio Diatta juróom-benn fukk ak juróomi kilo ak Omar Faye juróom fukki kilo ko juróom-ñaar ñoom ñëpp ëllëg danañu soobu ci jogante bi foofu ca réew Égypte. mbokk yi foofu la ñuy buuree xibaaru digg bëccëg gii di jaajëfal mbooleem ñi nekkoon ci régie bi mu di technicien yi alaaji ABC ba ca màkk ak i tamit euh, sëñ Mohamed Thiam soxna càllalu moo togg xibaar mu jëm ci wàllu réalisation mbokk yi yaa ngeen jëf ci teelu bi mucc ak mucc la ñu yendoo ak jàmm